abonné leen ci seen seen YouTube Partout moom leen di jox xibaar yu wér te Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV mbokki internet dal leen ak jàmm dalati leen ak jàmm lañ leen di wax di leen di wax nag ngeen di way di abonné te ngeen di laal j'aime bi dina ci am solo seeni partage ñu dikkaan nag ci li nga xam ne rek moom mooy jàngat yi niki tey dañuy delluwaat nag ci ki nga xam ne rek moom mooy Nabou moom mi nga xam ne nag min nañ ko lool wante kat bi la yoon mu génn mën nañu kii de cœur la daal di def eh, ci digganteem ak jëkkëram ji nga xam ne rek moom mooy mbergan gannaaw nag bi mu ko yekkee lu mel ne xeme nekkat tolloon na diggante bu nga xam ne rek dépression la jotoon a amee sax moom mii di Nabou Dash ba taxoon sax yaayam daal di woo kii di mbergan pour nag wax ko ne ko kat na ko fàcc eh, ci noonu sax ci la ko waxee ne ko naka jox nijaayam daal di koy may baatam ci jigéen gu nga xam ne rek dafa feebar te feebar bi moom mi dina bu daas daal di joxañ baaraamu tuuma ne jëkkëram génn si ndaxte kat ñàkk toppatoo gu nga xam ne rek ñàkk naka ko toppatoo en tant que ku nga xam ne rek da nga kaa jox sa lépp moom mi dina bu xam xamle kàddu yi ni mel nekkat bàyyi góor ñëpp dal di koy topp wante kat sëy ba amu ci lu ko neex ba sax tax mu dem ba ñàkk li nga xam ne moom mooy ay bi yu bare baree bari ba yegg sax ci utiliser li nga xam ne rek moom mooy oram linimel gannaaw nag feebaram bu nga xam ne rek tëraloon na ko lu yàgg-yàgg mu daal di xëy génnaat yëkkati kàddu yi ni yekk ko ki nga xam ne rek moom mooy borom këram gi nga xam ne rek moom mooy mbergaan